ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykati kam mangala yaara faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba C'est euh, le numéro de téléphone 33 820 39 95 alors 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul n'a dañuy ubbi du lundi au dimanche ah dama Quand kon nag boo ay kar yu bax dawal gaaw établissement Khadim Rassoul ña nga nekk fofu ci parcelle ci marché police établissement. champion maa lay ziar bu bax ma ngi lay delloo ziar bu baax. combat bi nga jogé ci diggante ak Youssou. waaw waaw d'accord, d'accord la wax nga jàng ci combat boobu. wa combat bi combat la woon rek comme yeneen combat yi xam nga grand yi bu ñu ak booy yi lamb ji du neex il faut ñu may booy yi sens parce que ñun dañ doon mag may suñu ay mag sens te loolu mooy doxal lamb te itam euh, ki ma doon bëreel du ko xamadi réewul quoi te man moom bépp bépp booy bu may bëreel rewo. mu leer ma ne def nga ci lamb dara mun naa la may sens. Mhm. pare nga pour mayaat booy sens wala da ngay bëre sa morom ci biir lamb. waaw su ma su ma amee morom nag moo gënal. su ma amee samay morom ñoom isaapu yi ñu ci làmb ji ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci làmb ji su ma mënee am ñeneen man moom ma gënal incha allah. ñoo sa morom ci biir làmb waaw samay morom yow yaa ma gën a xam sax samay morom Zos Bac Seras isaapu yi Saalum Saalumin ñooñu samay moroom lañ waaw. bu la nanguwul jël. ah bu la nanguwul jël. bu ma nanguwul jël ma bëreeg booy loolu du dara. damay booy waaw parce que bu yaru nekk booy bu yaru te def fi dara waxuma la n'importe qui de. parce que Youssou Ndour bi ma koy jël dafay def dara dafa ñak combat bi passé bari ay bari ay combat yu bari daan te kiko ko daan dafa bari ay victoire waaw mais yalla moy maye yalla ko joxone defet mais bu fekkoon amoon na ndam tamit non la ko don jëlé ji te waaw lool non la ko don jëlé tamit bu amoon ndam tamit. waaw ñoo ngi lay ziar ñoo ngi lay ziar bu baax. jël ma booy naka mu nice waaw yaa ngi si jàmm. waaye maa ngi bu baax. la fi bàyyi. ci loo nekk sant Serigne Touba rek koo toll diggante sa combat ak Abou Ndiassé ba léegi yaakaar naa non bëri naa brise de mer daan ko ba dëgg caatu yaraax ñàkk uh-huh. mais chaque jour sama combat ñu ngi koy dox mais yéen a mbëri ci lay yàqoo uh-huh. Youssou bu Balla Gaye Youssou Ndour Jackson Pape Ndoye. waaw Gamou Gueye dañoo war a bëre ak man. Bulldozer Bulldozer dox nañ combat ba petit promoteur moo ko tëgg. waaw ko ba desul lu génn avance bi Matar Ndiaye bañ. Ah. Matar Ndiaye na bàyyi xale yi bëri ci seen biir. Brise de Mer mënuma ba Bulldozer. waaw dañoo bokk trois adversaires man damaa daan jox leen mu daan. Ah. kon dañoo war a mën a bëri ci suñu biir mais bu mu bu xale yi. bu mu yàqal xale yi waaw. Franc Sokh. waaw ñoom ñaar c'est le meilleur kenn mënul kenn. Ah. a liggéey a non man lamb laa jox favori bi. Ah. ku gën a liggéey laa ko jox. waaw. bëgg naa ci yow. ku baax ziar waaw maa lay daaloo ziar. su ma juumalee yaay papa yi Batista. Batista numéro 2 bu doon bëre fils de Max. bëre fils de Max keroog waaw man maay papaam waaw. noo gisee Franc Sokh. Franc Sokh lépp a ngi ci Sokh. maa la wax lii de. lépp a ngi ci Sokh. man maay papa Batista maa la wax lii. te bu lamb ci jeexee ñëwal dëkkat ma micro. mais bu dee gars yi jox favori 100 pour 100 kii di Franc li simple moo tax ñu jox ko favori te li simple ak arène du benn mbappan ak arène du benn xam nga arène bi moom jàmbaar fi dugg Japan dia man Japan dia ma neexoon ma takk ngeen ngeen bu jàppante ñu ne bu jàppante du yàgg Franc mooy avantage sok, moo dàq bëree moo dàq xeex moo mën maa la wax lii bu ñu xeex kuy avantage wu soq bu jàppante bëre soq waaw man daan daan daanu daanu daanu bu ma ji interview ma waaw ci yow la wax tur bi naka la. Ousmane. Ousmane Sarr. Ousmane Sarr. waaw doo ah, bu neex la. Ah. waaw neexoon na ñoom ñaar ñëpp nag. muy ñaari ndaanaan. ah. ñaari ndaanaan di bëre. ñaari ndaanaan la waaw. Ah. xam naa ko juum daanu moom. juum waaw doo gisee moom liggéey na mu ngi ci forme bu baax a baax a baax waaw. sox nag ñoom ñaar ñëpp gis naa leen. ñoom ñëpp a ngi ci forme. moom ku juum daanu. waaw. Franc. bërëg bërëg mooy avantage am. soxu teel a jàppante bi. sox na xeex ba combat bi yàgg mu soog a bërëg moom waaw. loolu avantage am. jaajëf. delloo naa la siyaar. Franc sox. non Franc maa ngi ci Franc. maa ngi ci Franc. waaw. sox ndaanaan la de. ndaanaan bu gaawee daal moom baaxul ci moom mais saa bu diiree rek du baax ci waaw. foo teg loolu. non xam naa ko Franc moo ëpp moo ëpp kii quoi moo ëpp moo gën a athlète waaw. daanaka bu ñu jàppantee mu mu yeex. non saa bu ñu jàppantee Franc daan ko. Ah. buñ laay bu ñu ko bu jàppee rek laam ji jeex. kon Sokh daa war a moytu jàppante bi. waaw xeex bi daal moom mooy avantage am. waaw. Ah. waaw dañ Franc Sokh. déggu ma. Sokh Franc. Sokh Franc. non Sokh Franc moom man Franc laa bëgg mu daan. Franc laa bëgg mu daan. waaw. foo teg loolu. non parce que Franc moo gën a nekk booy et moo gën a nekk ci yoon. soxu la de. soxu ndaanaan la mais kay daa dàq ba de. waaw bu ñu jàppante ku bu gaaw ngay gis xaas xuus lay nekk. kuy daan Franc day daan. bu ñu xeexee ku même xeex bi nii Franc moo ëpp doole. sox amu bi moo ko fa bu arbitre suuf lay rek lépp mooy loolu. Ah. lu leer laa lay wax. parce que su ne la sox tamit xale la te kenn ku ne dafa am avantage ci combat bi. mais ñu ne Franc dafa bëri doole loolu moom dañ ko koy nangul parce que mbëru la mais Sokh man li ma koy conseillé mu ñëw xeex parce que Franc ko doole. waaw ëpp ko doole non ëpp du ko yóbbul dara. non du ko yóbbul dara ñoom ñaar xeexal xeex bi avantage Sokh mais bëre bi moom buñ teel a jàppante avantage su ñu ne jàppante bi avantage su Franc la. non si non Sokh tamit telewul bëre de. Ah. telewul bëre. sëñ bi ci non góobu ne kaaw mun na si am ci bëre lay jeexee ma loolu laaj waaw. benn waaw yàlla yàlla boole yëpp saar. soq franc. soq franc man soq laa foori. Ah. waaw soq laa foori 100 pour cent. gaa ñu ne franc. Euh, gaa ñu ne soq amul sens si combat waaw parce que ñoom xamuñu soq. waaw xam nga boo xamul mbër moom man ee eh, nga koy wooyee ñoom dañoo xamul soq ñuy wax loolu. waaye bu bis baa ñoom ñu xam kan mooy soq. ci combat bi lañ koy xamee. ñu ne wu. bu ñu jàppantee soq dina ci wane boppam ba ñëpp xam ne kan mooy soq. bu ñu xeexee soq duma ko. ñu xeexee soq duma ko. Franc Franc mu soq soq actuellement nii boo gisee xam ne kii nii boo bokkul sax ak ak ñii nii nii gëm góom romb na Franc gars yi ñoo indi mais moom xoolul Franc te xaaral ba combat bi jeex. Franc mu ne may ne ko 30 secondes. Eh, moom du àgg 30 secondes. bu ñëwul waa ji ñëw. moom loolu la xam moo tax mu ne day ñëw. loolu day nappe rek mais bu ñëwul waa ji ñëw. jaajëf waaw combat la. combat ndax combat jànq la quoi. abante wuñ doole dèjà lam moo leen boole quoi cinquante cinquante la. que le meilleur gagne quoi. noonu la demee dégg naa ci yow. waaw kontaan loolu nekk. waaw maa ngi nii rek. bàyyi naa la ñëw ci bàyyi naa la ñëw ci làmb ji taxaw di couragé la balaa di dugal sa loxo sa poos bàyyi loolu. non damay waaj a bàyyi làmb. la moo tax loolu. ah gars yi nangu ñëw bëreeg man. gars yi comme kan ak kan. ñëpp. mais est-ce que nekkul Samba mooy mooy taamu adversaire. gars yi non non man amuma problème adversaire. waaw pour mujjee bëre. man boo xoolee si dynamique bi ma jógee damaa daan Serigne Ndiaye numéro 2 teg ci Mamadou Ndiaye gannaaw combat fii maa ngi moom Iba Mar waaw. ba léegi lu koy wax yow. ba léegi gars yi nangu ñëw bëreeg man. promoteur yi ñu ngi lay seet si wala. non promoteur yi ñu ngi may seet si mais adversaire yi ñu may wax. dañuy dem combat bi taxaw 2 jours 3 jours ñu ne combat bi yàqu na kooku delloo na avance bi waaw. doo jàpp ne moo tax ñu delloo avance bi ragal la wala. non ragal la gars dañoo ragal. waaw hmm. ah, sa sama mbir seddul nag. koo jàpp ne mooy sa adversaire potentiel ci lamb bi. ne ko réeli na ñëw ñu bëree. ne ko réeli benn. billaay wallaay tallaay na ñëw ñu bëree. njool la de. maa ko sut. waaw. daanaan la de. mako ko dàq waw waaw tek dama ko woné ah. dama ko woné à part ko rel marde na ñew lu bëre. marde bu géej way waw eh. sama adversaire ngoogu. sa digënde ak ñaka doole neexul. sama digënde ak ñaka doole neex na am promoteur bi ci doon wax. mais da nga dem ba ci biir promoteur bi moo parewul combat boobu. waw mais ben nga combat boobu ci wo promoteur yi. promoteur bu paré man paré na waaw kon Fallou degal lol digënde ak ñaka doole ak ki nga xamanté moy Zambala. fallu Ndiaye do na ci wax mom mais appliqué wul waaw moom doon na si wax man amoo problème adversaire ku ñëw baax na ku ñëw ma bëreeg moom waaw amoo problème adversaire ana booy ñaa ñaa mooy fi ñu ngi préparé mu ngi waaj bu baax dem ak Balla Gaye 2 waaw ñu ngi waaj comme ni ñu doon waajee combat yëpp mais combat boobu dina doy waar rek non combat la comme yeneen combat yi rek waaw mais dégg ñu ne booy ñaa daa am problème ci VIP bi non non c'est que li gars yi tuddee problème mooy booy ñaa dafa dugg ci VIP yi taamuwul dafa ñëw jël ñi nga xamante ni ñoo gën a métti si làmb ji Tapha Tine Lac de Guiers kan moo leen yëpp Lac de Guiers 2 ko ci lamb ji am ma sen kesse ko fi daan ak kan han booy ñaa ñew am ci mom lool bërëg mom duma ko ba stade bi yeb jug taxaw am ci mom lool ñu dafa am problème ci VIP te VIP ken mo ko see daan. mais mi ngi bëre ku doy waar nag. gars yi guñu ko. Oh. waaw buñ ko daanee ñu doora wax mais gars yi guñu ko. mi ngi bëre ku doy war ba la gay de lamb <laughs> la comme lamb yi rek. Oh. billaahi. pare ngeen yeen pare nañ bu yàgg. bu baaxa baax. pare nañ bu yàgg. Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat du 6 edusn téléphone au